te tàmbalee wax nag maa moom lay tax julleem wér gannaaw bi mu waxee iliman moom lay tax julleem wér mu ne faaw bu yéene roy ci kookee koy jiite doomi adama sax bu ànd ak sagoom lu muy def lu cëpp dana koy yéene kon ki nga bëgg mu jiite la soo ñëwee rek taxaw ci ndeyjooram xaw a làng ak moom mbaa ngeen di ñaar mbaa lépp ñaar daal di rang ci gannaawam dal nga yéene roy ca moom loola doy na waaye baatub awalan bee li ci am solo la tey wane ne soo nekkoon ci sa julli bopp gannaaw ba nga séen keneen muy julli mbaa kilifa rek ñëw fi sa wet tàmbalee julli boo mën a wéy ci na nga tàmbalee woon sa julli bopp ga daal di wéy rek ànd ak moom faaw rek julli googu nga tàmbali da nga koy àggale ndax boo ko see tàmbali war a sàmmonteeg orma ja da ngay gaaw rek àggale ko door a mën a ànd ak ki nga gis muy julli léegi waaye doo mën a wéy rek ca noona ànd ak moom ndax ci sa njëlbeen amoo woon yéene yi ànd ak moom ndax booba gisoo ko woon mbaa yëgoo ko woon wala si na day wane ne boo xasee am yéene ànd kii mu jiite la taw rek nga wéy ca loola doo sañ a jekki-jekki daldi beru yéeg sa bopp soo xasee yéene ànd kii mu jiite la ci julli lu yàgg-yàgg da ngay ànd moom rek doo sañ a jekki-jekki yéeg sa bopp mel ne ku ko bàyyi yooyu nag nee nañu bu ilimaan ji yàggalee julleem lool ba jawduwut daañu la may nga daal di mën a beru àggal sa julli bopp kon nga beru tàmbali julli yow dong doo mën a daal di yéey ànd ak mbooloo ma lu may da ngay gaaw àggale sa julli googee door a mën a ànd ak mbooloo ma ba tey it boo doon julli ci biir mbooloo maanaam ci gàttal rek am na ku lay jiite ba ngeen tàmbalee julli ni ñu ko waxee woon léegi doo sañ a jekki-jekki rek àggal sa jullit bopp ni àndutuma ak moom lu may rek mu yàggal ko yàggal koo xam ne jaaduwut ilimaan moom duy sart ne faaw bu yéene jiite ga muy jiite mën naa bañ a bàyyi xelam ci jiite ga muy jiite te du wàññi dara day am sax ñu bari sëñ si naa ilimaan bay jiite bu bàyyi xelam ci jiite ga du am gëneelal mbooloo waaye wax ji gën a wóor mooy ñàkk gaa yéene jiite ga muy jiite du teema am ngëneelal mbooloo daa ñu wax ne nag bu dee jullit nee moom na ilimaan ji yéene jiite ga muy jiite ñooñee mu àndal di jullee néew ma am ñu ne sart la ca mooy tax mu baax wax ji gën a wóor mooy mën naa bañ a dawal xelam ci ne maa ngi jiite ñii kat muy jullee néew bii bu am xelam demul ci jiite ga muy jiite ñuy jullee néew ba it dara nekku ca dëgg la sax doomi aadama bu àndeek sagoom ni ñu ko waxee woon léegi daanaka li muy def dana ko di yéene waaye nag maanaam itam mu jekki-jekki tàmbali jëf ja te xelam du dem ci loola dafa am yéenti julli yoo xam ne dañ cey sartu mbooloo yéenti julli yooyu nag moom ilimaan di koy jiite faaw mu yéene jiite ga maanaam boo muy door a tàmbali na delloo xelam ci mi ngi jiite julli googee julli jumaa mbooloo mënu caa ñàkk yu néew néew mat fukkal ñaar yu bokkut ak ilimaan kon ilimaan na bàyyi xel ci jiite ga muy jiite julli jumaa ga ndax mbooloo mënu caa ñàkk bu ñëwee bool ci bu sëddee ndax taw asamaan si daañu ko leeral balaa yàgg na ilimaan ji yéene jiite ga ndax boole googu dañ koy sart mbooloo waxoon ne ne ilimaan ni raatib moom menn moom dong bu teewee itam taxaw na taxawaay mbooloo kon moom mën naa boole waaye ku bokkut ak ilimaan ni raatib moom ni ki kenn kay nodd rek jot a teew ci jàkka ja ci waxtu timis mbooloo mi ñëwuñu ndax taw bi menn moom dong du mën a boole timis ak gee daal di ñibbi ndax moom du ilimaani raatib te it dañuy sart ci boole googu mbooloo ak julli ragal julli ragal daañu ko jàngale ci téere bi te jàngale woon nañu ko ci yeneen téere mooy jullit ñi duñ dee xeex ak yéefar ya am na nu ñu nosee julli ga def mbooloo ma ñaari xaaj am nu ilimaan di jiitee ñaari xaaj na loolu mooy jullit ragal ilimaan di koy jiite faaw rek na yéene jiite ga maanaam na bàyyi xelam ci jiite ga muy jiite julli googee bi ci mujj nag mooy ilimaan di jiite ba yàgg mu am ngànt am ko mu wóotal ne ko àggaleel julli ji nga xam ne kookee sottiku na ilimaan te nekkoon maamoom kon na yéene jiite ga ndax yéene ga jiite ga mooy teqale lam njëkkoon nekk muy maamoom ak li mu sottiku léegi muy ilimaan bokk na ci sarti maamoom moo ko koy jiite nañ bokk jëmm jenn julli gu ñu julli ni ki ñu bokk di julli ci subaar mbaa takusaan mbaa timis mbaa gee mbaa suba nga xam ne ñoo yemoo jëmmi julli ga ñu julli nañoom itam ci buñ dee fay bor di fay bor buñ dee julli ci waxtu wa di julli ci waxtu wa loolu jubli ci wasifatiha bu fekkee ne kee day julli ci waxtu wa kee moom day fay bor mel ni kii moom ci subaari tey lay julli kee moom ci subaari démb la bëgg a fay duñ mën a ànd nga jiite moom faaw mu baaxle waaye ka ñu jiite moom du baaxle dafa sart sax ñu bokk jamono ndax mën nañoo bokk di fay bor te julli kee bis ba mu dëkk ak julli ka ca des bis ba mu dëkk mën nañoo bañ a bokk mel ne kii moom tisbaar yi bisub gaawu lay fay kee nag moom tisbaar yi bisub dibéer lay fay du tax ñu mën a ànd ndax ñàkk bokk jamono ja mu ne nag nangu nañ day kee di julli farata yow ngay julli naafila moom muy julli farata mu jiite la mel ne ngay julli yoor yoor fekk ko naajee julli suba mu jiite la nga julli ñaar ràgga muy yoor yoor wala ñu toll ci waxtu tisbaar ngay julli tisbaar doon kuy tukki di wàññi ay julleem yow ngay naafile ñaari ràkka moom nag mu julli tisbaar di ko wàññi nga far ànd ak moom am na itam lu mat a jàpp foofu mooy su fekkee ne kee da ko wóor ne julli sàngam raw na ko kee nag moom day nattale ba xam julli googu rawoon na ko am rawu ko ñu nekk ko jàppal li gën a wóor mooy raw na la daal di koy fay kon ka nga xamee ne wóor na ko ne ci misaal tisbaar rawoon na ko su demee kookee nga xam ne ma ngay julli tisbaar di ko fay waaye daa jàpp la gën a wóor rek demoo xamul ba xam rawoon na koom rawu ko kay sikki sàkk rawoon na koom rawu ko bu jiitee rek ka nga xam ne wóoroon na ko ne moom tisbaaram rawoon na ko nattalee ko du baaxle ndax kii sikki sàkk julli woon ak tisbaaram julli ko woon day def li gën a wóor rek waaye daanaka li mu def naafila lay xaw a ñëw ci wóoree nag julli doon tisbaar moom julli dëgg-dëgg moo ko war kookaa war a jiite waaye su bàyyee kën a jiite ko rek du baax le moo tax mu ne daañu caxe loolu di wax naa ñaari góor ñoo xam ne ku ci ne amee na sarti jiite ñu bokk di julli genn julli te bu kenn koy jiitee moroom ma mu baax fekk ca des moom bu jiitee du baax dañ ne woon koy jiite ak ka muy jiite dañuy bokk di fay mbaa ñu bokk di julli ci waxtu loolu seesew la kooka da doon julli suba fekk jant ngi bëgg a fenk waaye nag am na ràkka jant bi door a fenk ba mu nekkee ci ràkk bu ñaareel ba nag ak ku dikk ànd ak moom mu jiite ko ràkk bu ñaareelam boobee kooku door a jóg nag mottali beneen rakk muy bi jëkk bañ ko rawee kooku du baaxle ki ko jiite moom ndegam julli woon na benn rakk laata catu jant bi di génn rek dañuy jàpp ne julleem gépp ak joox la maanaam dañ ko julli ci biir waxtu wa te ki ñu roy ci moom nag gannaaw bu catu jant bi génne rawee ci moom kon julleem gépp ak fay bor la dañ ne woon dañu war a bokk buñ dee fay bokk di fay buñ dee julli ci waxtu di julli ci waxtu balaa jullit maamoo mu baax tey sàmmonteeg yaar yi moom mu bañ koo defandoog ka ko jiite rawante na jiitu ko jëkk ko koo def su ko defandoog moom rawante na mu jiitu ko ci rek ak julleem daal nay yàqu te mooy allahu akbar bi ñuy tàmbalee muy armal ak asalaamaaleykum muy sëlmal yooyu yaar moom faaw mu bàyyi ba ilimaan def ko ba àggal mu door koo def te lu ñu wax ne su ko ilimaan njëkkee tàmbalee wax asalaamaaleykum laata ilimaan di àggale nag moom it mu tàmbali waaye kàddu ilimaan daanu na moom kàddoom door a daanu nga xam ne kon ilimaana ko jëkk a tàmbalee wax asalaamaaleykum tey moo ko njëkk a àggale asalaamaaleykum jë boobu moom dañ caa dogu ne maamoom ma julleem baax na ba ñu werante kay dana baaxleem du baaxle mooy ilimaan moo njëkk a tàmbalee wax asalaamaaleykum naka mu tàmbale nag laata muy daaneel maamoom ma moom it daal tàmbalee waxaat ba noppi nag ñu bokk daanee la ndoo ñu bokk àggalee ndoo boobu daal dañuy nattable ndax maamoom ma julleem dana wér wala du wér dañuy wax ne wax ji gën a wóor mooy julleem dana baax ba tey bu ñëpp maasee ne julleem yàqu na daal mooy ba ilimaan tàmbalee wax asalaamaaleykum laata muy daaneel moom maamoom mi dafa daal tàmbalee wax moom asalaamaaleykum bañ ba noppi itam njëkk daaneel ilimaan ndegam ilimaan a ko njëkk tàmbali waaye nag moom moo ko njëkk àggale kon julleem du baax boo weesoo nag allahu akbar armal ak asalaamaaleykum sëlmal yeneen xeeti farata yi ci des nga gaawantu ba njëkk koo def sa ilimaan lu araam la waaye nag def nga lu araam du tax sa julli yàqu mu des nag lañu sipp mooy ngay defandoo ak moom niki di rukkoondoo ak moom wala di sujootandoo ak moom dañoo taamu rek len lu ne nga bàyyi mu jiitu la ca nga gaaw nag fekk ko ca bu ñu ne maa moom araam na mu jiitu ilimaan ca farata joojee niki jëkk ko rukkoo mbaa jëkk ko sujoot mbaa jëkk ko sigee ju rukkoo mbaa sujoot bu ko defee nag muy àtte ba lay àtte ba mooy saa yu jiitoo ilimaan rek ca ponk ba te yaakaar ne bu delloo xam ko bàyyi woon dana ko fa fekk day delluwaat fekk ilimaan àndaat ak moom def mel ne bu njëkkee rukkoo ilimaan mbaa bu njëkk koo sujjóot te jàpp ne ilimaan moom ku yéex la mën naa sujjuwaat àndaat ak moom sëgg rukkoo mbaa sëgg sujjóot day delluwaat fekk ilimaan ja bàyyi ko mu jiitu ko ca rukkoo ba ak sujjóot ba moom nag mu door a def bu dee topp la gën te nag bu fekkee ne ba mu jiitoo ilimaan ca rukkoo ba mbaa ca sujjóot ba nee na fa teg xaar ko fa ba ilimaan ñëw fekk ko fa te ba ko fa ilimaan fekkee it nee na teg ba defandoo moom farata jojee kon dana baaxle waaye bu njëkkee sëgg rukkoo mbaa mu njëkk a sëgg sujjóot ilimaan ba ilimaan ñëwee laata mi ànd ak moom xaar ba ne tekk moom mu daal di siggi julleem lu baax boroom muxtasar nag moom dafa tàqale woon ak njëkk koo sëgg ak njëkk koo siggi boroom muxtasar moom daa waxoon ne bu fekkee da koo njëkk siggi ni ki mu siggee ci rukkoo mbaa ci sujjóot te ilimaanam siggeegut mu ne kon bu ko wóoree ne bu sëggaatee fekk ko fay bu ko tax sëggaat day bàyyi noonu rek ilimaan fekk si ko ñoo xas na siggi rek na bàyyi ilimaan siggi fekk si ko waaye bu mu sëggaat di ko fekki lay sukkandikoo nag mooy li borom téere bi wax moo xam sa ilimaan da nga koo njëkk a sëgg mbaa da nga koo njëkk a siggi lu ci mën doon boo jortee mbaa mu wóor la ne la nga ko bàyyi boo delloo nga ko ci fekk àndaat ak moom nag def loolee nga ko jiitoo woon muy sëgg mu siggi delluwaatal ca sa ilimaan dollu nga ànd ak moom nag wéy day wax nag bu fekkee ña fa tase kenn ku ca ne mat na ilimaan muy wax nag kan lañ gën a taamu bu jiite demoon sax ku ci jiite rek bu baax ndegam ñoom ñëpp a mat ilimaan su fa buuru jullit ba nekkee wala ko fa wóotu taamu nañ ñu jiital ko doon ci sax day ci jàkk te fekk ilimaan ratib ba nekk fa itam buuru jullit ba wala ka ko fa wóotu lañ gën a taamu mu jiite bu dee ci kër nag boroom kër ga nekk fa te it nam ko moomee noonu la ci dëkkee taamu nañ moom mu jiite su fekkee ne nag ka moom kër ga dafa nekk ka ko luye dëkk fa nekk fa lañ gën a taamu mooy ka fa luye jiite ndax mooy gën a xam xibla mooy gën a xam fa laab ak fa laabut doonte nag boroom kër ga da di ab jaam wala muy jigéen wala bu dee ci luyaas ba te luye kër ga di ab jaam wala muy jigéen it lañ sopp rek mais bu dee jaam baa moom ci boppam na jiite jigéen bi moom du mën a jiite benn yoon waaye nag ndegam mooy boroom kër ga bu doon góor mooy jiite sopp nañ mu seet geneen góor gu mat ilimaan ne ko jiiteel taamul rek mu daal di bàyyi noonu keneen jekki-jekki jiite te du moo ko ca may ndigal day wane ne buuru jullit ba ak boroom kër ga koo ci xam ne day ne woon yow lañ taamu nga jiite waaye nag am nga ngànt luy tee nga jiite daañu sopp rek nga seet ku mat ilimaan jox ko digal mu jiite te bañ loolu nag wuute naag ñee muy bëgg a tudd ñee moom ñee moom koo ci xam ne yaa sësoon ci jiite ga ca nañ ko taamoo waaye nag am nga ngànt lu tee nga jiite dañ lay bàyyi rek seet ka sës ci yow waaye doo am sañ-sañu jox kenn ndigal ne ko jiiteel dafa jàll ci tegale bi ci kaw rek sopp ña fa nekk bu fekkee ñaar mbaaloo ñaar ñëpp mat ilimaan waaye am na ci koo xam ne bàyyi la ca ka ca des mbaa ñu ca des kon sopp nañ bàyyi ba jiite te doom ja mbaa sët ba bañ koo jiite bu dee bàyyi tax sax ak doom yu mbokk ñu bëgg bàyyi tax ba kañ wax bàyyi bu ndaw mu jiite doomi bokkam moomee ba tey bu fekkee am na fa koo xam ne moo gën a xam xam-xamu fiq sopp na ñu jiital ko doon ci sax am na fa ku gën a xam xam-xamu xadis xam-xamu xadis moo ëpp daraja lool xam-xamu fiq waaye nag ka xam fiq day gën a xam mbiri julli ga ak nañ koy lijjantee ndax ëppale xam-xamu addis rek bari cag mokkal bari cag takk taxuta xam nag ni nga xam ne moom la boroom xam-xam yi tegalee masala yi ci bu ñu dajee dañu yaar yu bokkut bu ñu weesoo nag ka gën a xam fiq door caa teg nag ka gën a géeju ci addis door caa teg ka gën a mën alquran ca mokkal ga ak ca maxaarijul xuroof ba door caa teg ka ëppale ak jaamu yàlla maanaam xeeti naafile yiw yi ka ko ci ëppale say boo ñu teg ko ca teg ca ki gën a yàgg ci lislaam duñu seet ki gën a bari ay at su fekkoon ni kii am na ñeent fukki at waaye ba mu duggee ci lislaam ak léegi fukki at la am koo xam ne ñaar fukki at la am waaye ci lislaam la juddoo ba nam toll boroom ñaar fukki at yooyee mooy jiite boroom ñeent fukki at ya ndax yàgg ca lislaam lañu seet seetuñu barik at ya ñu doy caa teg nag wàllu askan te jiital ku bokk ci Quraysh ndax nekkam Quraysh ci la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bokk tey daal doon kon askan wa gën a màgg kon ku bokk ci Quraysh bu fa nekkee ñu jiital ko moom lañ gën a taamu door caa teg keneen sàmm gi ñuy sàmm askan daa tax ku ñu xam askanam bu wér bu fa nekkee koo xam ne dañoo umpale askanam du sax tey doomi njaaloo mbaa ku ñu foroon jàpp nañ ni moom ca dëgg-dëgg am na askan wér waaye daal kii lañ xam askanam kañ xam askanam daal lañ gën a taamu mu jiite bu ñamee ci yee ñu weesu mën nañoo seet ku ca gën a rafet jikko teg ca ka gën a rafet bind ci na ko yàlla bindee teg ca nag ka gën a rafet koddaay ci ni lislaam taamoo koddaay nga xam ne koddaay la weex na te it tal na taraay boo xam ne duñ ne daa yaraax te it dem na ba àgg ca dojar ya te bañ koo weesu di buubu nga xam ne xatut yaatuut ko daay lu mel noonu daal nga ko am taamu nañ ñu jiital ko tor caa teg nag ka amewut ko daay lu mel noona nga seetlu nag booy jàng muxtasar moom dafa jiitaloon ki gën a rafet bind doo caa teg ki gën a rafet jikko te boroom saraaba itam noonu la saraaye waaye dafa mel ni ñu def fii jiital ko gën a rafet jikko doo caa teg gën a rafet bind moo gën a yell bu amee koo xam ne alwarihum lañ koy wax aji sàmm ndax tey moytu yëlënt ngir bañ a dugg ci la araam am na ku ñu wax al awraam ka gën a sàmm mooy ka nga xam ne day bàyyi sax yenn ci dagan ndax bañ a jege lëlënt kooku xam nga moo féete kaw kon al awraam day bàyyi sax yenn yi dagan ndax bañ a jege lu lënt bu tasee kee nga xam ne moom lu lënt lay bàyyi ndax ragal dugg ci lu araam kon kooku gën a sàmm di bàyyi sax yenn yu dagan yi ndax bañ a jege lu lënt moom la ñuy jiital loolu ak gën daal di ko ci jiit rek ñoom ñaar mu baax ba tey ki nga xamee ne amul ak xemmem ci àdduna bu tasee koo xam ne am na ca ak bëgg aku xemmem it ñu taamu ñu jiital ko amul ak xemmem ci àdduna ak lépp luy jeex ba tey gor ak jaam te bañ daan caqale gor ak jaam saa yuñ tasee rek ñu taamu gor sa jiite te jaam ba bañ a jiite kon yi ñu wax yépp moom ña fa tase woon matoon nañu ilimaan dañuy wax rek ne ku ci jiitu mu baax waaye nag tàmm nañ kee jiitu bu fa nekkul ke topp ca bu fa nekkul ke topp ca ñooñu nga xam ne nag ku ci ne mën naa jiite bu ñu xëccoo jiite ga te la tax ñu koy xëccoo du daraja bëgg tuyaa bay yàlla wala taam alal ju ñuy fay kay jiite rek moo tax ñuy xëccoo bi ci kenn mënta bàyyee morom ma dañ koy teg ay bant su fekkee ne nag moom dañuy xëccoo ngir daraja rek kene maa jiite kene maa jiite te daraja ji kese moo tax ñuy xëccoo dañuy boole bàyyi ñëpp ñëpp bañ caa jiital kenn ndax ne nañu woon buñ dee xëccoo jiite ga ngir daraja kon loola ak rëy moo tax ñuy xëccoo ku ñu jiite rek sa julli yàqu ku ànd ak ñoom ñu jiite la rek sa julli du baax su fekkee ne ilimaan ji ak genn góor rek ñoo fa nekk doonte sax góor ga gone la kàllafeegut waaye nag am na xelum jaamu yàlla du nekk di fo mbaa muy julli ba yàgg mu dem bàyyi fa ilimaan am na xelum jaamu yàlla kon dañoo sopp ilimaan féete càmmoñ góor googee wala xale boobee féete ko ca wetu ndeyjoor te bañ a làng ak moom ba tolloog moom dëgg-dëgg xanaa xaw a deltu gannaaw tuuti bu fekkee ne ilimaan dafa nekk ak ñaari góor mbaaloob ñaari góor dañuy sopp ñu rang ca gannaawam mu nekk ci seen kanam lu ñu bari bari rek bu sàppi soo sa matee ñu defaat seen sàppi ci gannaaw bu ci jigéen amee nag moom ñu ko waxee moo gën gàtt muy jenn jigéen muy ñaar muy mbooloo jigéen moom paaw ko rek ci gannaaw lay féete nit bu doon julli ànd ak soxnaam it te tee soxna da koy féete ca gannaaw bu dee ilimaan ànd ak genn góor mbaa benn xale bu am xelum jaamu yàlla it na nga waxoon dara du ca sottiku di jigéen di moom féete ci gannaaw rek bu góor ñi defoon ay sàppe sàppe itam dañuy bàyyi ba sàppi góor yi mat bu fa jigéen nekkee wala mbooloo mu jigéen ba tey nekk ci gannaaw rek soo dikkee fekk ilimaan raw la dañoo taamu nga daal di gaaw rek wax la kubar ànd ak moom la ko desee ci julli ga boo fekkoon ràkk boobee mu rukkoo ca ba weesu ko nga xam ne wóor na la ne boobu ràkk moom raw na la ba noppi itam du tee ñu taamu rek nga daal di gaaw kàbbar fa saasa ànd ak moom ràkk boobee te bañ koo wàññiwaale ci sa julli te ñu bañ nga ne boobu ràkk raw na ma kon daa yi xamtalu bu mu jugaat ràkk ba ci topp rek ma door a ànd ak moom lañ gën a sopp rek mooy nga daal di kàbbar ànd ak moom gannaaw boo waxee nag allahu akbar muy armal su fekkee daa fekkoon ilimaan di rukkoo mbaa muy sujjóot da ngay waxaat beneen allahu akbar boo xam ne rukkoo ba nga ko fekk wala sujjóot ba nga ko fekk moo tax nga waxaat ko ndax sëgg rukkoo dafa am kabar sëgg sujjóot am kabar kon boo fekkee sa ilimaan ci rukkoo mbaa ci sujjóot boo kabaree kabaru armal ba noppi nag da ngay waxaat beneen allahu akbar ngir rukkoo ba nga ko fekk wala ngir sujjóot ba nga ko fekk gannaaw boo kaabare kaabaru armal daal su fekkee ilimaan ja ci jotaay nga ko fekk da ngay jekki-jekki toog rek na mu toogee waaye doo waxaat beneen allahu akbar dañ lay faral di wax naa bu ilimaan soomalee ba nga jóg bay fay lam rawe waxal allahu akbar door a tàmbalee jàng faatiha léeg-léeg ñu ne la da ngay jekki-jekki tàmbalee jàng faatiha te bañ a wax allahu akbar takk takk bi nag mooy lii mu indi fii su fekkee ne fa nga tàggoog ilimaan mu sëlmal yow nga jóg di fay ab ñaareel la ci yow nga xam ne boo julli yow dong it nga fa toog taaya fa taayu digg kon bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da nga wax allahu akbar doora tàmbalee jàng faatiha nga dolli ci nag su fekkee la nga fekkee julli ilimaan bëtul sax benn ràkka da ngaa ñëw ca rakka ba ci mujj te fekke woo rukkoo ba niki nga fekk ko muy taay rek nga ànd ak moom ba mu sëlmal koy itam boo jógee da ngay wax allahu akbar mel ni kuy tàmbali sa jullit bopp yooyu yaar rek ci ngay waxee allahu akbar gannaaw bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg bay fay benn bi mooy li nga fekk ci julleem ñaar rakka dong la du benn du ñett yéeful ba tey benn kon moom bu limaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw da ngay wax allahu akbar door a tàmbalee jàng waaye bu fekkee benn rakk rek nga ànd ak moom mu sëlmal wala day julli ñeent rakk nga fekkee ñett ya bu door a sëlmal kon foofee nga toogoon ilimaan baa la fa taxoon a toog waaye bu doon yow dong benn rakk doo fa toog am ñetteel boo xam du tibis itam doo fa toog kon nag bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg bay fay da ngay jekki-jekki rek tàmbalee jàng faatiha te bañ a wax allahu akbar muy nag bu la ilimaan rawee ba mu sëlmal say boo seet ni ràkk bu ne lam ci jàngoon moom nga ciy jàng nit ki bu fekkee ràkk boobu da caa jàngoon fatiha ak saar boo koy fay da nga ciy jàng fatiha ak saar du ñu ne nag faaw da ngay jàng saar woon jàngoon saar woo jàng rek mu baax ndax bu dee yellu sax mën naa am doo xam woon saar la jàngoon mën naa doon biral sax nga fekk mu biral ba noppi doo xam saarum jàngoon li ñu bëgg a wax rek mooy ràkka bu mu jàngoon fatiha ak saar boo koy fay da nga ciy jàng fatiha ak saar ràkka bu mu jàngoon fatiha kese boo koy fay da nga ciy jàng fatiha kese fu mu yelu woon nga yelu fa fu mu biraloon nga biral fa loolu waaye nag jëf ja moom doo ko ca roy doo seet ni fii dafaa toogoon mayit daa fi toog taaya wala fi toogu fi woon mayit duma fi toog dangay seet rek foo xam ne yow ñaareel la ci yow rek xam ne bu doon yow dong nga toog fa taaya taaya digg daal toog foofu yow it taaya fa taaya digg doonte ilimaan toogu fa woon foo xam ne itam ilimaan toogoon na fa waaye yow du sab ñaareel bul fa toog loolu nag mën nga koo jàng nii ba noppi boo ko doon def tey xëy na nga juum ca ni ki tey timis boo ñëwoon fekke rakka ba ca ilimaan mujj julli muy rakkaam bu mujj bu ilimaan sëlmalee ba nga jóg ba taxaw doo wax allahu akbar ndax benn rakka nga tàggoog moom benn nga am ci julli gi rakka boobu nga taxaw da nga ciy jàng fatiha ak saar te biral ko ndax moo doonoon rakka ba ilimaan njëkk julli rakka boobu jeexee nag yow da ngay toog foofu taaya ndax xam nga fekk nga benn ilimaan boo ci tegee bii mu daa doon ñaar ngay toog foofu kon taaya boo jógaatee rakka bi nga taxaw ñetteel la ci yow waaye nag moo doonoon ñaareelu ilimaan kon na nga cee jàng fatiha ku saar te biral ko ndax ñaareel la woon ci ilimaan yow nag la sopp ko sa ñetteel nga ciy jàng fatiha ak saar te biral ko muy sam ñetteel ba rakka boobu jeexee nga taaye sëlmal ku ligaloon mën naa am bu teeluwul rek bu ilimaan sëlmalee ñaar rakka yi ci suuf yëpp da leen di sësale bu ne mu jàng ca fatiha ak saar biral daal di toog taaye sëlmal li waxoon te la ci jox misaal mu ne la jullit suba boo dikkoon fekke rakk ba ilimaan mujj julli bu ilimaan sëlmalee ba ngay indi rakkab ñaareel ba da ngay jàpp ne yow rakkab ñaareel boobu moo doon ba ilimaan njëkk julli waaye yow sopp ku na sab ñaareel kon dangam fekke woon xunóot ci rakkab ñaareel ilimaan da ngay xunóot kon ci sa rakk bi nga xam ne ci ngay fayee ndax yow mooy sab ñaareel te ñaareelu suba mooy am xunóot su fekkee nag fekke woon nga xunóot defandoo ko ilimaan ci rakka boobee nga fekkee du jar ngay xunóotaat ci sa rakkab ñaareel bi
su ñëwee ba jógee fàtte sa fekk ilimaan biru ko mu bañ nag rakk baraw ko ndax xëy na su waaxoo ba dugg ci fàppe sa rek ilimaan siggi booba rakk raw ko kon foofee mu toll te jege sàpp sa mën naa dal di daw rek rukoo waaye nag xoolal sart biñ la wax da ngay seet ba mu wóor la ne mbaa nga jort bu baax ne fii nga toll boo jàppee ci say woom gannaaw ba nga armalee noonee nga sëggee da nga mën a dox ndànk di wuti fa ngay dugg ca sàppe sa te da nga ca àgg itam balaa ilimaanu siggee ca rukkoo ba kon da ngay daldi armal daldi jàpp ci say woom foofee nga toll noonee nga sëggee nag jàpp ci say woom ngay dox ndànk nag wuti sàppe sa nga bëgg a dugg su la wóoree loolu mënoo ko nag faw ilimaan siggi bala nga àgg ca sàppe sa kon doo saña armal jàpp ci say woom te àggoo ci fa nga jëm ca sàppe sa te yooyu rek ba àgg ci fa nga jëm bu la ràkk booba rawee itam nga séentu beneen lu may nag ràkk booba kat moo mujj ca julli ga bu la rawee rek mën naa am doo am nga nelul mbooloo ndax moomu mbooloo raw na la te wóor da nga am meneenam déet kon daal di la may rek nga daal di gaaw armal daal di sëggal ko fasaasa dane woon bu fekkee rakka boobee doonut ba ca mujj doo sañ a jekki-jekki gaaw armal jàpp ci réewam lu may dala wóor mbaa nga jortu bu baax ne noonee nga jàpp ci séewoom da nga mën a dox ndànk ba àgg ca fu ngay dugg ci sàppe sa te ilimaan du sigeegun ca rukkoo ba mu bëgg a leeral ne xëy na kat nga jàpp ne loolu mën nga ko far sa njortu nax la wóoroon na la ne man ngaa gaaw armal jàpp ci say woom noonu nga jàpp ci say woom nga dox ndànk wuti fa nga dugg ca sàppe sa balaa imaana siggee ci rukkoo ba naka nga ko def nag far sa njort nax la gaaw nga kabar jàpp ci say woom sëgg doon wuti nag fa nga bëgg a dugg laata nga fa àddu ilimaan siggi bu ilimaan siggee yow it da ngay siggi ne moom tawit da ngay siggi rek na ilimaan ba siggee ci rukkoo ba te nag xam nga ne boo siggee ci rukkoo ba ak diggante ba ngay sujjóote day gàtt bul fa jéem a dox juuti fa nga war a dugg ca sàppe sa da ngay far rek sujjóot foofee nga toll bañ jàll ci ràkk ba ci sës ba taxaw nag ci taxawaay boobee nag ngay door dox ndànk wuti fa nga bëggoon dugg ca sàppe sa bañ tolloo ca diggante ñaari sujjóot ña wala bu fekkee ràkk boobee taa yi da caa sësoon bu mu tax nag nga toll ca toogaay boobee bëgg a bafungu nag ndànk di wuti su ngi dugg ca sàppe sa ndax darngu bafungu noonu di darngu dafa ñaaw dafa rafetut ngay bàyyi bañ jóg ba taxaw ci ràkkab ñaareel ba rek nga door dox ndànk nag dugg fa nga bëggoon a dugg boo duggee it ca sàppe sa te séenaat foo mën a dugg ca sàppe sa ca kanam jàllal ba ca soosa boo séenaatee ca sàppe ba ca kanam foo mën a dugg it jàllaat ndax sàppe sës ci ilimaan moom boo ëpp tuyaaba ba addis ba wax ne nit ñi buñ xamoon tuyaaba ji nekk ci noddu taxaw ci sàppi su njëkk buñ xamoon tuyaaba ja te mënuñu koo ñàkk te koy bant dana leen jaral te ko koy bant kon nag boo duggee ci sàppi si seen ca kanam foo mën a duggaat da nga cay jàll lu bokkut ak sàppi si nga dugg wala bokk lu bokkut ak sàppi si nga génn ndegam daa fekkoon nga nekk ci sàppe dañu la may nga jàllaat yeneen yaari sàppe ca sa kanam boo fekkee ilimaan muy rukkoo nga kàbbar nag doon gaaw di jàpp ci say woom waaye nag wóor la ba xam ci dëgg-dëgg daal booba ràkk bokk nga ca wala bokkoo ci la ndax jàpp ci say woom njëkk ilimaan di siggi ba taxaw joon wala déet xamoo ci daal lu wóor da ngay bañ a limaale booba rakka bu ko defee bu ilimaan sëlmalee nga fay ko weccee ko beneen dañu ne woon ba ilimaan di jàpp ci woomam nga jàpp ndox moom du ca sart sart ba kay mooy balaa siggi bay taxaw jonn rek na fekk yow nga sëgg nga xam ne bu ilimaan jàppoon ci woomam nga tàmbalee sëgg laata nga jàpp ci woom nag fekk na moom mu tàmbalee siggi nga xam ne bokku leen jàppandoo waaye gis nga ne sëgg nga laata muy àgg ci siggi ba taxaw jonn koy boobu raka bokk nga ca masala mi weesoon na ko ci gannaaw ne woon am na ñaari déggin yu rëkkut mooy nga ñëw fekk ilimaan di rukkoo nga bañ nag booba rakk raw la dañ ne woon bu fekkee noonee nga taxawee bu taxawaay ba nga tàmbalee wax allahu akbar waaye nag yaa nga mottalee allahu akbar ja ci ba nga sëgg jëm ci rukkoo ba nga xam ne kon li ne woon taxawaayu allahu akbar farata la yow defoo lépp ci taxawaayu allahu akbar da ngaa tàmbalee rek kàbbar ba ca nga taxawee bañ na ko ba raw la tax nga daal di gaaw sëgg àggalee kàbbar ba ca noonee nga doon sëggi mbaa sax dem nga ba jàpp ci woom door a daaneel kàbbar ba waaye daal yaa nga tàmbale woon wax nga allahu akbar ca ba nga taxawee loolu benn la ba ca def nag mooy bi nga tàmbalee wax allahu akbar fekk na nga tàmbalee sëgg nga xam ne wax nga allahu akbar tàmbale woo ko sax ca taxawaay ba boobu moom dañoo maase woon ci ne boo waññiwaale boobu rakka bi nga xam ne tey bi ngay taxaw nga tàmbalee wax allahu akbar àggale ko ci sëgg ba dañ doon nattable boobu rakka da nga koy wëcc am doo ko wëcc wax ji gën a wóor mooy ndegam ba ngay tàmbalee wax allahu akbar boobu yaa nga taxaw ñàkk gaa matal taxawaay wax nga allahu akbar jéggalin la ko boobu rakk da nga ko waññiwaale waaye nag bu fekkee dangaa tàmbalee sëgg ba noppi door a tàmbalee wax allahu akbar nag moom boobu rakk da nga ko wàcc doo ko limaay sa julli ak lu mën di am moom yaa ngi ci biir julli ji tàmbali nga waaye nag daa am foo limaale boobu rakk ak foo xam ne doo ko fa limaale